nuyu nañ Bougane Gueye dañuy gis nga nag baatu gëm sa bopp. Mhm. bu baax la. Mhm. mais am na ñoo xam dañuy exagéré nag parfois. duguma politique de dama joxe bokk sam Bougane exemple nuyu naa Soda Mbaye ah mi ngi sonn ci Bougane. Mhm. fi may waxee mooy que ne euh, gëm sa bopp day ànd gëm yàlla. boo gëmee yàlla kese toog na yàcc day des. boo gëmee sa bopp ba jàpp ne yaay may sa bopp it day des ndax am na maçon yu la gën a sonn fuuf am na mécanicien yu la gën a sonn fuuf am na taximaan yu la gën a sonn fuuf maam Thierno Badiane du noppalu te yoragut li milliard Euh, waroon na mën a doon meeru xaar yàlla comme na maanaam du sonn rek ay maye am na ñoo xam ne buñ mm-hmm. sonnee ba am mm-hmm. dañuy dun am ma yërmande sax danaan li ma daj pour am lii dem leen du sonni nangam déedéet yàllaay maye am na ñu la mm-hmm. gën a sonn te amuñu ah loo ngi nii laal na Ligue des champions ñëpp xam nañ ne moom mooy loolu waaw ah, fekkee ko ci boole <laughs> mooy loolu quoi est-ce que comprendre li may waxee bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro sëriñ As Birane Seck leeral waaw borom leeral waxuma télé bi borom leeral ci sa wàllum seet ak sa wàllum wér-gu-yaram. 78 147 04 83 da ngay bàyyi émission bi jeex nga ma laajaat numéro bindal mi ngi nii moom laa la jox 78 147 04 83 beneen bi 76 461 02 92 76 461 02 92 beneen bi 33 824 72 09 33 824 72 09 Serigne As Birane Seck borom leeral Serigne As Birane Seck borom leeral Serigne As Birane Seck borom leeral takk na jëppit moo nekk ni ci Ouest Foire nga xam footballeur bu bëgg a takk yëpp moom ngay jëflanteel bu baax a baax baax Serigne As Birane Seck mais gis nañ yoo xam ne que nag jërë tudd tur wala yaay tudd mhm. ñoom daal gis nañ ne ñi ngi ñi ngi rek mhm. am ñoo xam ne wa xewal gi ci ñoom la jógee wala faneen la ba léegi xéwalu oto bi ci kan la ci waxoo de. waaw xéwalu oto bi da nga oto bi. mujj bi bu bees bii nii comme yow da la jox ay oto yu dul jeex rek moom. xéwalu moom. waaw ko kuy fubal wala euh, ku. nekkul kuy fubal. Mm. kuy liggéey la. du kuy politique tamit. <laughs> du bëgg du ko yor réew. wala ku wala ku jege ko yor réew. en tout cas daal ku kawe la waaye xam nga comme damaa jox. Euh, <laughs> ay code la ay code comme ni ñu waxee rek. Mm-hmm. ku xam foo jëm doo àgg. Mm-hmm. waaye ku la lebal lu baax. ma sant ko. Mm. maa ngi koy sant bu baax. di sant mais ñu leer daal kon bii moom bokkut ak footballeur yi. bii bokkut ak footballeur waaye footballeur tamit ñu ngi ñëw. ñu ngi ñëw de ndax ñu ngi def leneen lu ëpp wax dëgg yàlla. du ma wax sax lu ëpp oto. Mm. ndax teraanga du tuur. Mm. waaye maa ngi sant daal. maa ngi sant waaw ñooñu ngi ne ñooy samay joor. nit ki ñu nga xam ne dinaa tudd seen tur. tuddal kan ak kan koo xam ne moom ah. fu ñu toll ñu ngi jokkoo ak yow am na koo xam yéen a bokk Diourbel fii ah. Pathé Ciss Pathé moom laay déggante saa su ne. waaw mooy rakk Saliou Ciss. maa ngi tudd Saliou Ciss maa ngi la doon jëw li nga wax Pathé bu kox <laughs> bëgg mu juglu ci cat. ko. muy ñu baax pour coupe du monde dugg. muy ñu baax. Mhm. ku am coloré. waaw di santaat sama rakk tamit. muy Bamba Dieng. non waxal ci Pathé Ciss boore temps na de bi mu ci. mooy bi ko club bi naree fontoo noonu. waaw waaw waaw di ko wax la bu mu waree dem benn équipe bi waaye nag Lyon la doon dem sax fee la de. Lyon waaye nag comme li ñuy wax rek. mais xoola transfert kooku defal ko Real. waaw foofa gën. ah xam nga dañoo rafet njort ne comme li muy def ma Saliou Ciss mën na ko. <laughs> Thiaw Mendy Thiaw Mendy dafa day dem Pathé tubaab jëlee ko fa rek dugg. day dem Pathé ñëw incha allah rabbi. Pathé moom ñaari tànk lay footballé macha allah. am yar am tey mbëkk man lu muy def tamit. kooku tamit sama rakk la sama xarit la. Mm-hmm. kon Pathé Ciss léegi Lion bi mën nga koo sànni sensé mu doon Real wala. waaw rafet nañ jot feneen mooy gën sax Real lañ koy yóbbu incha allah. Real amuñu moom Real lañ incha ah! allah fa la jëm bu soobee yàlla. man de maa ngi nii biir Real ma ko Real presse laay dem wax ak ñu rek mu gaaw def ko kon benn yoon ah. loolu daal la ñuy ñaan. Ah! te mën nañ ko. Ah! te incha allah rabbi tamit dina am. dina am waaw bu soobee yàlla day gën a kawe. ak naa gis presse kon wax ak moom yow nga def baatin ma def saayir bi. incha allah rabbi Pathé Ciss ñëw incha allah kooku moom Bamba Dieng bi ngay tudd sa rakk beneen Bamba tamit sama rakk la mhm. di sama xarit mhm. di sama lépp tamit wax dëgg yàlla ñu yàgg lool mm-hmm. mu jox ma cëru moom mm-hmm. moom fii la juddoo donc ba ma nekk njaareem ba tey tamit mm-hmm. euh, ba muy nekk jàmbaar waaw boobu ba léegi mësta mësta ñaaw mësta ñaaw lépp nag euh, daanaka teraanga bu ne mu ngi def tamit si kër gi mu ngi def ci kër gi dëgg yàlla Euh, wax ma kër gi sax koñ bi yëpp ndax fu mu dëkkoon ak fii sore parce que fan yi maa ngi gis ñu naan euh, benn ami d'enfant bu mu jëndal oto xam bu kii quoi maam kóllëre euh, dinañ topp soor seen nitu démb yi bu baax na ci bu baax a baax a baax mu ngi bàyyi xel bu baax a baax hmm. wax dëgg yàlla tamit événement bu jot hmm. dina yónnee teraanga mais bi ko entraîneur bi fonto mënoo woon jëflante ak entraîneur bi tuddoor dem xam nga xam nga àdduna hmm. li may wax chaque jour rek bu ngeen di jëflante ak doomu aadama dañuy ñaan yàlla lu jot rek yomb te lu gën si yow. Mm. SBI changé na club. changé na club defe naa ne club bu mu ñëw. Mm-hmm. bokk na si ñu joueur bi fa gën a seer si jamono ji mm-hmm. te day demaat feneen fu ko gën te foofu bunta la rek dafay fëgg. fëgg la dafa taxaw. feneen ak feneen. Mm-hmm. damay ñaan yàlla mu ñëw Angleterre. dem ay Manchester. City équipe yu gën a kawe. man yu day changé ci jikko moo tax na dem ay ñoom City <laughs> kii yooyu noonu. City Liverpool mi wàcc waaw na dem City rek kon. damay bañ mm. uh, ah, Manchester Manchester yi <laughs> gis nga tey. nee naa leen tribunal war nañ def leen comme jigéen yi di sëye góor yi di mu nga nar a tas sëy mu leen sonalati bu leen juge yéen laay waxal de sama xarit juge yeeg yëpp bu leen lu atte atteti ñaar ñoo xam bëgg leen seen sëy tas dañ leen di ne leen dem leen faral man sa sœur ah may leen benn un mois ne leen na ngeen faral sa sœur te bu ñëwaatee wax ma résultat bi nu mu demee xam ne fa la ni jànge formation muñ comme ñoom Mbappé mën na mañ lu ne ceer day dóor mux di xëdd yëpp day muñ nga man sa sœur la faral Jibril Fall ah DG LCS ba Manchester la faral ku faral Manchester moom xolu muñ nga yor moom parce que boo amee victoire sax miracle ay ñoom suug yooyu <laughs> moo tax kon Manchester moom xanaa dina baaxaat mais kii a crise moom gëmmu mooy loolu mm-hmm. Mm-hmm. mais kon daal ñoom Bamba Dieng ak Pathé mm-hmm. ñu bàyyi ñeñ ne ñi moom dafa yàgg moo ñu côté ko noonu yi gis ñooñu dañoo yàgg te it euh, wax yàlla am na ñeneen ak ñeneen ma wane seen vidéo yéen ñaar wala jar ko <laughs> jar ko waaw xam nga ñu bàyyi noonu ñu bàyyi noonu waaw comme yow xam nga. Mm-hmm. te ay code la. waaw daal dama mën a wut wax dama ne yemu ma si ñoo ñaar xam naa soo demee ba. jiite lépp ak yeneen bi di wax ak yow kay. ak ñeneen ak ñeneen xam nga yooyu. Mm-hmm. Eh, ñooñu def sax. Mm-hmm. macha allah daal macha wax bu bëri. xam naa di ko mën a yeneen joueurs yéen eh, <laughs> xam nga lépp daal. ay code waaw. man daal yemu ma si ñoo tey kii indi oto bi. teraanga bu rëy la. wallaay azim lu rëy la non yow gënal barke euh, gis nga sëriñ buy def dëgg mhm. saa loo amagul rek dafa ñëwagul lu rëy la lu tappale ma ne maye dëgg ma na ko ah, maye te man dëgg gi ma xam ci yow mm. wax dëgg yàlla di ko seede fu ne euh, am na xadijee maa ngi koy nuyu ca mbuur moom day toog di la ñaanal ku baaxee nii mhm. ñoom li ci garaaw mooy ku jëflante moom danaan ku baaxee nii ndax am na ci àddina bi mhm. baaxaay gi oyof gi yaru gi yaatu gi day maslaa daal moo tax euh, vraiment te yemul ci bu doon dafa baax rek nii du ma ko du ma fi taxaw di wax nii de parce que am na sëriñ soo xam man nan baax yónnee la say bagage dina yegg si di nga leen woo dinañ la jot dinañ la woon ne mekku la mais résultat amul man ndoxuma ci yooyu de mhm. man damaa bëgg à am ba mhm. teg ci nag mhm. mais toog bu dee baax rek nii man man naa baax nag <laughs> ah di am yitte rek di woote di la xoolle ko garab yegg si na fekk mooy loolu garab yi moom mën naa dem ba États-Unis te la mu fay def gisuñu ko loolu du mbir bi mooy nanga baax li ngay def baax ci ñi jëflante yow gis ci lu baax loolu mooy mbir bi loolu moom damay wax rek xam nga loolu tax ma esti na na la yëkkat teraanga bu rëy bi mm-hmm. duggi leen nag si man waaw waaye dafa am yenn acte yoo xam ne ba ko doomu aadama defee mm-hmm. euh, du jar du ñaanal la mm-hmm. waaye dafay jar nga sant ko nga sant ko kon ñaanal ko baax mu fekk sa biiru nawle ñi lay booleeg moom mu am ay kàddu yum la dénk na la man gor laa waaye li may wut su ma ko amee yàlla rek a tax doo gën a gore dama bëgg nga lu loo laaj rek. wóolu naa la. wóolu loo ma wax rek defal. ndeysaan am nga nit wax na ne la boo ma laajee sarax xoolum ba xam def nga wala defuma may dénk naa la ko. dénk la ko tala naa samay loxo nga ñaan ma yàlla lii bu sottee doo ma gën a gore. doo ma gën a gore. waxuma oto. Hmm. waxuma dara. Hmm. doo ma gën a gore boobu la ma. doo ma gën a gore. keroog bu muy indi affaire bi. samay dëkkandoo yi nekk Ouest Foire. Hmm. xam nañ si dara. ndeysaan ndax lu may wax chaque jour rek ñaan naa yàlla lépp lu ma am. fu nekk fu ma neex laa koy rombale parce que laqatuuma mm-hmm. euh, jaayuma sama xam-xam mm-hmm. ndax moom moo ko ba koy jaay mm-hmm. aaju bu waay mën a am te muy dellu si yàlla boo ñëwee bu soobee yàlla ma ñaan ko yàlla ndax yàlla rek laa yaakaar man nag lu ma gëm lay wax man damay wax ne su ma romoon si mbedd mi sax boo taxee na ma seetal ma yàlla am na lu ma dénk ma taxaw yow xoolal la kooku man la ko yàlla may ak leneen ak leneen lu mën a am kon nit bu la sante mbir rek farlu ci ndax ku Hmm. kon tey bu yàlla defee loolu mu sotti hmm. mu salaat dallam ànd ak nitam hmm. ñëwaat yëkkati ay kayit jox ma na ma lii ak lii na ma ñeme ko gaare sama buntu kër ñeme ko romb fu ne nga xam ne tey bis bu ma romb du ma romb nit mukk mu ne ma gaare la doo sëriñ bu kii euh, luy oto luy oto nag araamul de comme mm-hmm. neex luyal de waaw mais moom dama kër gi xar ñu xool ci kaw sax barke rasulaay Tektal TV ñoo xool ci kaw kër gi mhm. kër sëñ asbira sekk nekk ni kër koñ ba koñ masha Allah yàlla yàlla laf cat de amiin yaa rabbi bi bi benn la ci benn ah su suñ jinnee yee filmé wala ñoom docteur Wade da ngi ci kaw air bi di filmé barke rasul bay maa sa ngi filmé ci air bi waa Tektal ñu ngi ci kaw ah ñu ngi ñu ngi ci kaw di wane kër gi kër gaa ngi angle ba angle ah bu leenee lépp ñoon la te gis nañ tamit say dëkkandoo day dëkk dëkk bu rafet teg ci mhm. waaw ñu yéene la loo am waaw wax dëgg yàlla da nga dal dëkkandoo moom. mooy lépp. macha allah te ñu baax lañ. Mhm. man bi ku fi ñëw yaakaar naa ne koo ne kër sëñ As. Mhm. man sama kër dama ne kër taalibe la. Mhm. boo xoolee ñu fi nekk ñëpp. daanaka dañuy bàyyi seen kër bàyyi seen i waajur manqué wun dara. ñëw nekk sama kër. ñëw nekk loolu bu la ko yàlla defee rek santal. santal waaw donc maa ngi leen di bu baax a baax a baax. di leen sant bu baax a baax. bokkul ak sëriñ buy nekk 24 heures sur 24 ci TikTok bi def live de. guddi gi bu waree bu ñuy nelaw mu jóg bu waree yor kurus moom loolu dafa am looy maye loolu. faru leen ci loolu bu baaxa a baax a baax a am na sëriñ soo xam ne que nag. dañuy jóg am dara. Euh, téere bu ñu leen doon jaayloo ñu xalaat ne war nañ mën a jënd oto bu leen doon jaayloo ñu xalaat ne war nañ leen koo mën a jënd koo war a jox bagage am mardi nga ne ko xaaral jeudi commencé ba nga commencé wax lu dul dëgg rek boobu la barke ba commencé rocceeku siru bi mm-hmm. rocceeku mm-hmm. ngay wax lu dul dëgg di lekk lu dul dëgg di mm-hmm. bloqué nit ñi di ñàkk ba wàcc dee deux moo am na sëriñ xam ne que milliard du waral ñu toog a man ndax lan am na dëgg googu faaw ñu wax ko ànduma kuy dil duma dil yéene laay demee sëriñ moom mën naa laa yëkkati ba ca kaw wàcce sama bopp ba ci suuf mais li ma bëgg rek mooy na nit ñi bëgg man bu ma kenn may dara bu ma kenn defal dara yow mi soxla sëriñ ak yépp mooy loolu mm-hmm. am na faneen fu ma mbégte bi may am ci liggéey bi mm-hmm. pour war ne li ñu def du fo man loolu jaral na ma lu ne mm-hmm. liggéey bi café wu ko fooye wuma ko kon daal yal na yàlla barkeel kër yokk yokku oto yokk ndam yi yokk ñu ñëw ci beneen mbir boo xam tamit dafa sonal sëriñ su bari muy wàllum mitan tegtal wàllum góor waaw góor buy gaaw a yegg ku mënul dara ci sëyeeg yooyu loo ci mën xam nga lu ma ci doon wax rek mooy huit jours huit jours yéen laa di joxe ba léegi waaw xam nga wàllu néew kattan mm-hmm. dañ ko yombal te yombul nga xam nga nit mm-hmm. rab mën na koo def mm-hmm. waaye pour nga xam ko pour nga mën koo faj faaw nga xool ko faaw nga xool lan moo nekk si moom am na ñoo xam ne rab moo koy def dafay téye seen seeni awra waaw di ko wàññi am na ñoo xam ne rab da koy téye saa bu ñu nekkee soxna rab bi daf leen di fiire daf leen wàcc lu bëri am na ñoo xam ne bu ñuy tuur ndox Mm-hmm. dafay mel ni ku tardé di metti mm-hmm. am na ñoo xam ne dafay jàpp seen naq yi mm-hmm. am na ñoo xam ne dafay tàngal seen yaram saa su ne dañuy am envie mën a nekk ak jigéen te saay bu ñu nekkee moom rek dañuy gaaw yëg si bopp loolu lépp nag suy am faa nga xool ko ci nit ki kan la waaye gëmuma benn garab nga ne moo bëgg faj ñëpp nit xool ban coté la Mhm. ban côté la ko lii def su ko defee nga mën koo xool la ma si nekkoon daal mhm. ba léegi maa ngi si nekk ci huit jours daal waaw si huit jours huit jours daal ko jëflanteel bu ko neexee bu paree bu la rombee bu fasul kóllëre seen diggante bu la nuyu waaw mu ngi koy man leen fu ma xas a romb mhm. yaay départ ànd ak man ni ma fekkoon rek nga may fekkaat yàlla bu ma mas a su ma demee ba nar a daal yàlla ma fa yàlla jëlee boo ko laay ñaan saa mooy lépp lu ma boole ko dëbb ko boole ko ki sungu fa ki bagage jox ko nit ki ne la boo koy laal naan di gis résultat nga jël tey nga mel na gaynde ëllëg nga mel ne muus ëllëg nga jaare fa ne yasar fattu ji nag daal di gaare kon oto dafa am lu mu war a daw ci tali bi euh, nit tamit dafa am lu war a doxe ngeen di bàyyi xel sëriñ bu ci def loolu nag bis bu ñu ko xamee dina la weer comme mi ngi am am na ku ma doon mas a invité mu ne ma xam ne ku koy def loolu moom man du ma ànd ak kenn ci tappale ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. ku ku rax garabi tubaab moom nu ko nit xàmmee. <laughs> am yow sa bopp daal nga xam. man daal xam nga ne du ma laal mbiru tubaab. doo laal mbirum tubaab. si li ma jàng daal. Mhm. ak li ma rafet njort na maa ngi si am résultat. Mhm. maa ngi si ñaan yàlla suñu borom mu may sàng sutura. foofu laa mën a wax waaye comme li nga wax rek xam nga jamono ji. li ngay dégg dama koy dégg. waaye da ngay wax rek da ngay toog di seetaan. ndax xam nga jamono bi comme TikTok. nit ñi am na mi ngi ñuy wanaat fii man a yow dox nii di visiter kër gi ci biir ni ñoo nekk di dox ni uh-huh. waaw gis nga maa ngi sol yére Tektal bi nii sax. Uh-huh. fii yëpp ci kër gi la macha allah gis nga Tektal TV barke Rasulullah ñun koy def résultat. Uh-huh. sa lu baax rek la lay wane wane yaa ngi sant lu tappale di may rek yow yaa ngi koy am. fii mi ngi ne côté bee mer bi doon dox fee mooy puus na <laughs> soxna si nga jaar noonu tamit takk takk ko ñaareel xanaa <laughs> ah, am fit bi day maas ñu wax ndànk xaaral ñu wax ndànk sax balaa ñu lay jël ah, comme yaa ngi si kër gi ñu wax ndànk waaw wax ndànk fi ne matal na lépp daal matal na lépp man na aawo mën na ñaareel mën na ñetteel mën na ñeenteel waaw nañ ñaan yàlla rek ku la xool moo la tooñ su ñu nekkul ci kenn <laughs> jeex na kon moom moo ko wax maa ngi nuyu Ndumbe USAID polygamie kon daal suñu asma ah? mm. kon daal wàllu ngóor daal ku ci ñëw bég bu soobee yàlla li ma si nekkoon rek laa si nekkee mm-hmm. ku si ñëw ma mm-hmm. ma xool la dinaa la wax na ak nan la lay def ba nga mm-hmm. xam ne lii am na ba pare ma doot la jox garab ku nekk mag nag te doyulul am as bu sori te bëgg a bég ci sëy ba léegi mën nekk xam nga bànneex moom la ñëpp di ñaan nga ñëw jéem ko jox bànneex rek am na bànneex mu am bànneex rek incha allah nga xam ne que nag dañuy sëy mais bànneexu sëy jàpp nañ ne ni Mauritanie umpalee coupe du monde noonu la ñu umpalee bànneexu sëy léegi jigéen ñooñu mënoon nga leen dara te jàpp nañ ne moom mënatul nekk ndax lu xam def nañ Mm-hmm. waaw xam nga loolu tamit mm-hmm. am na ay garab mooy li nga wax da ngay gëstu rek mm-hmm. di wut xam-xam moom jar na dem waaw Mauritanie maa ngi leen jégalu samay xarit ngeen de fa ngeen ma joxe yàpp yu baax ak waa Gambie coupe du monde xam nga exemple la Canada sax pour mu ñëw coupe du monde problème la mooy loolu il faut ñu comprendre xam nga tey am na ñoo xam ne euh, rab dina leen ko def rab dina leen ko def waaw bu rab nekk ñoon la gën a yëg bànneex bu ñu nekkee si nga xam seen borom kër yooyu yëpp nag lu mu si rek dinaa ko xool dina am ay garab yoo xam ne da nga dégg ñu naan jigéen buñ jongal loolu dafay am problème yooyu tamit da nga koy lijjanti mm-hmm. adduna de mm-hmm. waaw ñu ngi rafet njort daal mm-hmm. xam nga lépp loo gis rek foofu jëloo engagement de moo da ko mënul xanaa na tur bi waaw wala <laughs> <laughs> mën nga ci daal ah, non non ba am ñun tamit dañuy kenn ku ne problème bi mu am buy seetaan tegtal saa muy wax papa yaay lii mooy problème am mu seetaan tegtal xam solution bi waaw ah, loolu daal xanaa waaw jombut bu dee loolu la tamit mën nga ko mu jéem a gëstu keneen daal ah, bu dee loolu moom mënoo ko <laughs> ah, waaw libéré moo tax bëggoon bàyyi ba wéet mu ne leen mënu la ah, la xarafal déet mu jeex ba si yow bu soobee yàlla li nga nekk ak sa parce que am na ku jigéen koo xam ne que mi ngi France doon na wax ne moom xam na ne borom këram amul problème mais moom moo am problème. xam na ne moom jàpp na ne xam naa ci lu man ñeent ñoo xam ne kër nee na bànneexu sëy moom comme li ma naan Mauritanie dem coupe du monde ni mu jafee ñoom jàpp nañ ne loolu gën a yomb sax ñoom ñu yëg bànneexu sëy. Hmm. nag mais ñooñu ñëpp bu ñëwee ci daal solution am na. waaw xam moom. Hmm. rab mën na koo def. waaw nit sax mën liggéey tamit liggéey mën na koo def. Hmm. gàllankoor yu bëri mën na nekk waaye li su mën a am rek bu la dalee. Mm. nañu xool ba pare suñ la waxee yan conséquence lay def si yow ba pare ba nga xam mm. bu soobee yàlla dinañ ci sóobu insha allah balaa may génn foofu am am na ku jigéen koo xam ne dafa amoon dafa la mm. xëy na aaw baa fagaru indil koy problème kooku nee na euh, sëyam far na tas parce que problème bi lu dul gis règle fu mu toll daf koy gis mm-hmm. xeet boobu mel noonu quoi jigéen ñaa ngi dund lu métti ah. mm-hmm. ci ay xeetu wujjeeg yu mel noonu waaw ku ku am jafe-jafe mel noonu mën nga ko dimbali loolu bu soobee yàlla tamit am naa si ay nit Mm-hmm. yoo xam ne loolu dal na leen. daloon na leen daloon na leen. waaw parce que yàlla laa xam di ko moo leen bu ñu ñëwee. Mm-hmm. ñu boole mag ñoon. wax yàlla yàlla saafara na ko. Mm-hmm. am naa si ay nit ay samay jigéen yu baax ndeysaan. li ma leen wax chaque jour tamit xam nga comme li nga wax rek. nit ñi moom dañoo doy waar. doy waar nit mën na laa teg feebar boo xam ne. daanaka da ngay gis fóot rek. nit mën na laa teg feebar boo xam ne après fóot bi du arrêté. du arrêté euh, ñu ma si jot ñu ma booleel kenn nit laa si xam. nañ ma booleeg moom. Mm-hmm. boole na war na may lu mat xanaa ay six personnes mm-hmm. nga xam ne kon dëkk bi yàqu na dëkk bi yàqu na waaye tamit alhamdulilah ba mm-hmm. ah kii ma boole nit danaan diw ma moo boole ëllëg te mu ne man de ba ba ma ko booleeg moom ñetti fan mu saafara wu ndax si may macha allah daal xam nga foofu li ma fi bëgg a wax nit ki bu bëggee président Macky Sall nga bëgg Macky Sall waru leen am problème nit ki bëgg Macky nga bëgg Sonko foofu d'accord man ngeen réeroo tuuti mel ni Modou jàlloo buy werante Modou kaaña wala yu mel na loolu mën a nekk nit ki bëgg Barça nga bëgg Real man ngeen jotee Mm-hmm. mel ne comme par exemple kan mooy ba waa Barça sax dérangement yi bareetu bareetu nan <laughs> ah Youssou Pono Youssou Pono ba ci cikki mën nay werante kooku mën ngeen bañ a déggoo kii bëgg euh, Sadio Mané yaw nga bëgg dem bëgg ay Salah yu mel noonu waa Égypte Sadio Mané ak Salah moom kenn dëkkaleetu leen loolu dem na bàyyi ko fi maanaam tey dama bëgg war ne koo bokkal lu ngeen bëgg ngeen mën a déggoo pas ngeen di réeroo pourquoi mm-hmm. wujju nit ki bëgg Real nit ki bëgg Barça mën nga jotewu leen mais nga bëgg Real mu bëgg Real ba pare ngeen di jote bujj li nga bëgg la bëgg ki nga bëgg mu dund nga bëgg ki nga bëgg mu yor mu yor ki nga bëgg mu dàq fi mu dàq fi ngeen bokk ko bëgg bu pare nga dem di ko bañ tamit loolu logique logique na. waaw loolu de logique waaye xam nga rek. Hmm. Euh, loo moom. Hmm. xëy ne yàkk na ko bokk. waaw sama mbokk jigéen ñi day xaw a diis. day xaw a diis mais yàlla. waaye boo gëmee ne yàlla moo ko bind. Hmm. rek euh, dina yomb. dina yomb euh, àdduna loo yenu rek mu diis. moo tax jigéen ñi dee leen xool parfois bu la leeree ne sa yaay du aaw. Mm-hmm. ah sa rakku yaay du aaw sa mag du aaw. boo demee gis am wujj muñal te comprendre àdduna bee bindoo noonu. Mhm. comprendre ngeen di ànd di muñ parce que tamit li ngay wax nii nga moom lenn. Mhm. ñu ne la yow kese moomatoo ko bokk nga ko kenn. moo gën tamit ki nga ko bokkoonoo léegi moom na ko bokkatoo ci. <laughs> waaw parce que am na xam ne dañuy déconné ba far ñàkk lépp. ba ñàkk lépp waaw teel leen seen sëy. na si ba mu dëgër mais ku bëgg a bañ a wujj nag bañ am wujj mën nga ko ko garanti lool. Hmm. waaw xam nga boo ñëwee. Hmm. yow doo ko wax ci kaw. <laughs> xam nga boo ñëwee. <laughs> waaw kii daal da koy def de. <laughs> non du ma <laughs> xam nga sax xam nga nit moom. comme eh. bu solee dàllam ba ñëw. waaw bu la diisee soxlaam. Mm-hmm. Euh, boo ko seetalee ba mu wax la. Mm-hmm. nga ñaan si yàlla yàlla mën na ko antu. mën na ko antu wax dëgg ay nit dina ñëw. Mm-hmm. Ah, lu ma am. defal naa ko woon. waaw ah, nga xam ne mu ah, la ma sañoon tey du ma ko ndax li ma liggéey moom ba heure bi ko yàlla ndax aajo moo ko tax ñu eh, na koo saafara ko da ko rafetal wax bi daal neen daal ku bëgg wujj wujj a am wujj mën na la loolu du am ci côté wujj tamit am na beneen problème bu nekk foofu lu ci ëpp euh, entourage bi dañ indi problème parce que da ngay sëyi fenn ka ngay fekki doon ku baax lool mbokk yi jàppe la comme kii nu mu tuddati kii móodloo yi ñi yor ci mukaay yi kii yor ci mukaay yi mel ne dañ lay defaral toppatoo la mel ne da ngay bëri ci wala bu Balla Gaye wala yu mel noonu ñu di la topp nag ba ka ngay mel ñëw au lieu nga fekk fa jàmm yow day mel ne yaa indaale fitna. léegi tamit mu desaat tamit jigéen ñu sérieux ñi ci sëy ignoré que doon tubaab bu ñuul bañ a am bañ a tal yooyu lu ci ëpp ñooy am problème ci sëy yi tamit. ndax lan kee day gettaru wut si leen indi leen problème. am ñoo xam tamit góor gi day ñëw ci kii aay loolu dem fekkee du man dara. xeet boobu yëpp ngeen moytu ko te xam ne wujje jaru ko ngeen di rafetal lu fi waaye def ci àddina bii àddina fii la yam te li muy gàtt-gàtt dund nit ki ko gën a gàtt kon nañu rafetal mbir yi bu baax a baax bañ a lor doomu aadama boo koy kii sax nga fexe yow euh, sa jëkkër gën la bëgg sax yooyu gën a oyof mais ay lor nit ba du doxi wala mu jaare fa dëdd wala xet yooyu dara jaru ko quoi muy noonu ngeen muslu ci bu baax a baax léegi doom talit wax ba waxtu bi xanaa loolu moom ñu ñaan si yàlla rek mm. xam nga rab dina ko def liggéey tamit dina ko def comme li nga wax rek nga sëy moom boo si dugg da nga koy xool dina am ay mbir yu si ne waaye ku mën doon hmm. boo si ñëwee bu soobee yàlla dinañ ko listixaar hmm. xoolal la ko defal la ñaan yàlla sottil ko am nañ ci ay mbégte daal ay mbégte daal bëri nañ ay turundoo bëri nga ci turundoo xam bëri naa ay turundoo daal turundoo ah. que nit ñi parce que ku ko tudde rek kon kon cum lii doonoon mm-hmm. bari mais man mm-hmm. naa laa fajal nee na mm-hmm. wàllum am doom ba ngeen am ko ba pare te bu leen neexee tuddee ko pâté siis bu leen neexee tudde ko pâté sëy parce que ñu ngi dëkku Assane sëy ak pâté sëy Assane moom ko euh, pâté ko dal la mais moom ab dérangement la Assane sëy <laughs> day déranger moo tax Adja sëy sax la ñu gën a gërëm fi ak euh, Mout sëy mm. ak Ndiaye Ndiaye waa bel ak Aline Badiane ah mm-hmm. gars yi bu baax a pâté sëy daal moo leen gën a tey nag ak yaru <laughs> gaaw màggal si ah. mm-hmm. bu baax a baax kon mm-hmm. euh, du question doom yi ngi ci yënda tudde yëpp loolu nga faj mais loolu la nga koy faj. waaw loolu dama koy pour muy la waaye doom yi la. ak nit am mbégte si yow. Mhm. ak damay wax ne rek mbir mi du du ñaan rek. sëriñ moom da doxalante di ñëwalante. Mhm. ndax ay nit rek lañ. macha allah donc man tey bëri na ñoo xam ne tey. Mhm. kóllëre gu may daj ñoon mos ñoo toog sax na ma ñaanal ma. waaye dañuy am co eh, cofeel gi ñuy am si yow ak li nga seq ak ñoon si leneen. yàlla def tey ñu am eh, njaboot tudde la ko si yéene. ak leneen ak leneen. Eh, waxtu beeru daf balaa ñuy kii ay kayit ku nekk bitim réew bëgg kayit ak ku bëgg a tukki. Mhm. day indi passeport nu mu demee. waaw bu dee wàllu tukki de da ngay indi mhm. ni ma ko daa defee rek saa su si nit ñi. Mhm. am na lu su ma si ñaanee ñetti yoon. ah bu ma xoolee sarax bi la yàlla mën na koo saafara. mën na koo saafara ah, bu fekkee nag ñu nekk bitim réew wàllu kayit. waaw ah, yaakaar naa ne de. la ma si waxoon 15 jours. 15 jours am naa ay mbir am na si koo xam ne barki démb sax. waaw ah. mooy woo. am na koo xam ne ko kontaan na ko sonoon ci kayit yi. wax na ma waaw waaw waaw na te sonoon lool. ak ñeneen ñeneen sax. li mhm. may wax chaque jour rek. mooy confiance mooy lépp. confiance lay gërëm bu baax. moom moo ko war a sonn ma ko waxee. Mhm. sarax bi dana ma ki ma booleeg yow maa xoolal sama bopp gis wax ko kooku. Mhm. lu mu wax mooy bu ngeen ànd si dëgg. man daal wóolu naa la boobu xaw ma woon. ndeysaan diw Cheikh Talif moo tax ma ma jàpp la ndax ku dëggu la. man nag xaw ma la. Hmm. añ na wax boobu nag marqué na ma engagement man nag xaw ma la hmm. ku dëggul moo tax ma xam la hmm. kon war ngaa am ngor keroog tamit bu yàlla la ko waxaat ma na ma la ma la waxoon démb moom laa moom laa la wax na léegi ba pare ma toog ne la boo boo koy namoo rek ma xam ne kii dafa tàndatu lii quoi voilà moo tax dama naan tekk bàyyi noonu ba xam ne résultat yu ni wàññi rek des na mais man bu ma la boolee ko sëriñ sëriñ bi na laa fontoo bu ma tàggu de bàyyi ko dem ci leneen. Mhm. parce que yow tënkoo ma. sëriñ bi tënku ma du mhm. kenn ma ci jox di ma dama la boolee ngir. yomba jot. Mhm. ngir yërmande bi. ngir comprendre ngir résultat bu ma fay séntu. lii moo tax may booleeg nit ak nit ak yu mel noonu. léeg-léeg sax naa la wax far nga dëkk nga ne ma nangam ma ne la nangam. parce que man lii euh, nee naa leen sëriñ mënul faj sama mbir yéen ñii tamit ko ko man transfert Neymar ba sax ak bu crise bu Al Nassr ku ma ko joxoon doyul li ma soxla. Mm. waaw dama bëgg a dem doon murit buy am solo ci màggalu Touba. Mm-hmm. ay milliards doyul. te dina am incha allah rabbi. <laughs> wax incha allah euh, donc waxtu dab de ah. mm. ay kii daal kon bu ñëwee ku ñëw bëgg. 15 jours daal bu soobee mm-hmm. mm-hmm. waaye li ma siy wax rek mooy fukki fan yi ak juróom bi bu soobee yàlla. li si yéene yàlla dina ko sotti incha allah rabbi. incha allah ma si xasee pare moom. yàlla am ñu si denk Mm. te ñu ngi si am ay résultats. Mm. te yàlla bu mu yem benn bu mu yem lu ñu man a compter. macha allah euh, jigéen bu jëkkër tey yëpp bu ñëwee am ak noob ak yëpp dinañ ci ñëwaat. beneen yoon bu soobee yàlla incha allah rabbi comme ni ma ko defee rek seen mm. xanaa di sant. ak Tektal sama soxna. Mm-hmm. di sant euh, sama waajur di sant ñëpp. Mm-hmm. di sant njaboot gi nga xam ne seeni waajur da leen euh, jël jox ma leen. Mm-hmm. muy bëri lool kenn xamul sama doom kenn xamul kenn ñi fi nekk ñëpp tey ay doomu jàmbur lañu. ndeysaan. ñan papis ñu fi papis papis waaw mi ngi noonu papis naa ñëw France ñu taxawaalu ji. waaw kooku bu demee France moom la fexeel mu dem Real tamit de. papis dafa war a dem Real. a dem Real. moo fi nekkoon. Mhm. tey ngañ moo fi ne. ngañ nu mu sant. Euh, ngañ Demba Diouf. ngañ Demba Diouf. jóge Casamance. jóge Casamance sama dëkk waaye nekk sama lépp. waaw ah, suñu équipe nationale Casamance daanaka amatul ko sant Diop de moo tax ñuy jël ko ak yooyu de ñu sant Diop moom <laughs> ah nun lu waay ah ngañ dem ba Diouf Casamance moom nga dem ci club yu mag jël lépp jox ma ko. Mhm. di gërëm sama xarit. Mhm. maam As Camara. maam As euh, di gërëm sama doom Baba Yoro. Mhm. ak euh, Serigne Saw. ak euh, Saliou Dioum. di gërëm sama famille. di gërëm waa dëkkandoo bi. di gërëm sama taalibe. nga xam ne ko sa si man rek la. muy xaadim. xaadim Touré nekk Mbour. taaliba bu ndeysaan cofeel gu ma am si man mënta xëy sax te du ma damay dem ba damay ruus ndax whatsapp moom lu neem euh, man la ku lim juum waaye dafay am yenn yoo xam ne ba ku nit defee te defaloo ko dara hmm. boo toogee war nga koo xam ne li muy def waa góor saa su ne lu mu mën a am mu nekk taaliba Serigne Saliou Mbacké nekk lépp euh, hmm. bëgg ma lool nag te yàlla tax maa ngi gërëm ñëpp hmm. euh, di gërëm sama xarit tamit sama taalibe Sara jàlloo nga xam ne tamit bàyyi lépp ñëw fii mm-hmm. kon daal maa ngi gërëm waa Tektal tamit mm-hmm. muy sama télé nga xam ne gisoo ma fenn fu may fii Tektal TV yàlla bu ñu mas a am gàcce man damay wax ne chaque jour fii laa am fii nga am fii laa am kan mi temps Tektal ah. di gërëm ñoom mm-hmm. Seynabou di gërëm Sayer sama xarit Sayer Fall Sayer Fall Mohamed Wade mu Amérique Mohamed Wade sama jigéen sama confidente Nogay Nogay Diop Allemagne Nogay mu nekk Allemagne nga xam ne mooy sama lépp ak ñoon Fatou euh, di gërëm Baye Mass. Baye Mass ñëpp waa Tektal gars yi. sama ah, xarit day def statut di la bloqué doo ko gis. <laughs> tous tous mes savants. <laughs> waaw ah, di sant ñëpp daal. gërëmal docteur ah, Wade tamit. di gërëm docteur Wade. Mhm. di gërëm gars yëpp maam Thierno Badiane petit Sow petit takk na. ah macha allah di gërëm <laughs> petit. takk na léegi Gaw Sow. Eh, yàlla na sëy bu barkeel. Mhm. yàlla may la bu barkeel. di gërëm mère Khady na gën a bàyyi suñu kanam. Mm-hmm. Euh, di gërëm sa xarit yëpp daal. macha allah taxawaay di nga defar ñoom moom it Tafan. Ousseynou Ly Ousseynou Ly équipe ba gën a ñëpp ah. ñëpp dana gën a yokku. allah di leen sant bu baax a baax. di wax ne daal. Mhm. saay bu ngeen gëstoo gis ma saay bu ma mhm. gëstoo gis leen. macha allah ndax lii kum doyut dara du la doy. ay kilomètre kilomètre ngeen bàyyi ko lépp ñëw fii. si njaareem mooy wan ne dañuy dem Casamance dana dem feneen ak feneen. ndax làqutuma jeex na fu ma maa nekk daal comme dëgg ngeen nekk moom laa ñaan yàlla nekk fi France ak Allemagne ak tàddin dina am Brésil ak Gambie ak beneen fépp euh, incha allah maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp hmm. waaw di ñaan yàlla madame Seck bu baax waaw di gërëm surtout madame Seck njabooti xale yi hmm. euh, ku lim juum ndax lu boota si ginnaaw daal waaye maa ngi sant ñëpp hmm. di sant bu baax a baax Papis Diop Papis Diop muy sama xarit Papis ku baax la bu baax nga xam ne tey ginnaaw yàlla bokk na lu ma mel moom la taxaw naa ko si lépp mu taxaw la ci euh, mu tukki ak mu ne fii. benn la benn la ndax saa su ne. Hmm. balaa fanaan si laal dina ma woo. ndax mooy sama lépp moom la ma ñëpp xame woon. Hmm. ma ko bees. yéen ñii laa amoon. Hmm. gisoo leen ma feneen. du ma sa am. macha allah yaa baax rek euh, li nga nekk rek gëm ko. non dinaa ñëwaat bu gën a bi nga xam ne tamit lépp moom la. muy sekk ndaanaan sekk ndaanaan teraanga couture teraanga couture. Euh, ba mu jàppee ba léegi bawut Mmh. émission bu ma mas a dugal ginnaaw yàlla moom la kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di gërëm bu baax xanaa waxtu bi moo ñu dab moo ñu dab incha allah waaye gën a baax yal na yàlla barkeel incha allah bu baax a baax barkeel ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf di euh, waa Gandiol la euh, di partager Tektal bu baax di def àdduna bi yëpp pour ñuy abonné Tektal moom El Hadj Ndiaye bu Germany euh, moom it noonu la bëggee Tektal ak Dieynaba Diabaté ñi bëgg Tektal TV moom dañ bëri ci àddina bi maa tax moo tax ma ne kum neex abonné kum neex bul abonné gërëm nañ Wally Seck comme ni ñu koy waxee rek du force te yow ku baax nga bu baax a baax jàpp ji tegtal rek ca kaw ca kanam bu baax a baax a baax 78 147 04 83 78 147 04 83 beneen bi 76 461 02 92 76 461 02 92 beneen 33 824 72 09 33 824 72 09 Euh, sëñ As sekk Seck borom leeral nekk ci Ouest Foire ci wetu kas des tout-petits bi ki nu habillé nag Seck kii la ngir mën a Seck naana Sam Couture la nekk ci cité Asecna Derklé booy dem station euh, kii école Khadim Rasoul Mamadou Ndiaye Diop 77 645 01 73. équipe technique bi na àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wade Petit Sow nekk ci borom këru Rahma. Baye Massamba Diop nekk ci borom këru inconnu amul kii nu mu tudd Baye Thierno Badiane euh, nekk ci ànd ak ñun bu baax a baax soxna May Diop ci réalisation gërëm nañu sëñ Fallou Mbacke Diop ak El Hadj Suluxu Ndiaye ak soxna Zeynab Diop ak maam Jaxate ak nijaay Seexu Jaxate ak soxna Faat Jaxate gërëm ñeen ak Tafa Jaxate ak waa Ndemeen yëpp Tektal TV télé tollu ko fii xewal dikk loraa ngi dak sëñ As Birane Seck borom leeral jaajëf